dikkati na ñi jël fiche de parrainage yi ñaari téeméer ak yu teg ci candidat yi tribune yéen a kaay naan leen kaay leen jël leen siis ngeen toog ma yedd leen xamal leen nag boo leen dégluwul lii nga xam ni moo naroon dal gëm sa bopp wallaay dina bari candidat yoo xam ne bés bu ngeen di delloo seeni fiche daa ngeen am lu leen metti wala yéen i dee média bi naan maan moom gëm sa bopp ci boppam dafa daal di gis ay anomalie yoo xam ne am na ci fichier loo xam ni waree su ci woon am gannaaw ba mu ko waxee lañ ko daal di saytu defar ko boo xam ne dafa bari erreur te DGE moo ko def gannaaw bañ leen ko daal di xam leen nañ ko daal di corriger direct news naan kon moo taxit gëm sa bopp ngay alerter opinion ba nag naan leen gis nañ ay faay daal nañ koy corriger te lu ne mën naa am 24 heures yéene kaay naan man teel nañoo gis erreur ya teel koo wax direction générale des élections ñu teel koo corriger tribune yéene kaay naan man maa mën maa ëpp doole xam nga coow li mi ngi tàmbalee nag ci fichier électronique yoo xam ne jébbal nañ leen ko ci colonne bi nga xam ne dafa war a am bés bi nga xam ne sa carte d'identité ci lay jeex bés boobee nag ma ne la dafa daal di taxaw ci carte d'identité yi nga xam ne 2016 la tàmbali jëm 2024 loolee wane ne laataa élection présidentielle yi bépp carte d'identité boo xam ne fichier ba mënoon na ko defar day daal di jeex carte d'identité yu jeex yi lay doon dootul valable ati ci fichier bi nga xam ne dañ koo imprimer jox leen am na tur ak sant ki nga xam ni moom mooy pare ne te lépp nag ci benn trait la daal di nekk waaye ci clé USB ban leen jébbal ñaari identifiant la ñu war a def ci ñaari colonne yoo xam ne bokkul Mamadou Gueye gis ne dugg ci fichier ba daana daanaka dafa jafe woon mu daal di koy xamal waa direction générale des élections waa grand place naan mar daar daar bi nga xam ne xamal nañ leen ni mbir mii dafa am ay faay waa direction générale des élections dañ leen xamal ne dëgg la daal di leen di jébbal beneen clé waaye tam yeneen i fiche yoo xam ne wuute na ak beneen li nga xam ne nag moo bëggoon dal bugaan gars yi naan mën naa dal neen ñi nga xam ne ay candidat lañ ci élection présidentielle yi xool leen bu baax clé USB yi nga xam ne waa direction générale des élections jébbal nañ leen ko ndax nag à tout moment ma ne à tout moment li dal ñii mën na leen dal ngeen dem ba joxe seen i parrainage kese des ca ñu gis ne nag borom carte d'identité yi ma ne la seen i carte d'identité dafa jeex mënatul wote wala it ñu defal leen ñaari colonne yoo xam ne ci benn dong la mënoon nekk ngeen dem ba foofu nag ñu ne leen seeni i parrainage baaxul tàbbi na géej ña ngay alerté de turbine yéen kaay naan man ña ngay alerté nañu bàyyi xel bu baax a baax ci lii nga xam ne nag moom moo am ni ki démb ci direction générale des élections te bu ñu ko corrigé wul woon mën a gàntal ay candidat ci li direction générale des élections du jox fiche de parrainage Ousmane Sonko maître Doudou Ndoye naan wareef la ndax nag laataa muy joxe faaw mu gëm ne Ousmane Sonko turam dugaat na ci ñi war a wote ci réew mi te loolee liggéey ay avocat kaam la ak ñi nga xam ne ñoo ko jege nan jaagar jaagar rek notification bi jébbal ko DGE te buñ ko ko jébbalee mënul def leneen lu dul jox leen fiche rek maître naan leen xam ngeen Ousmane Sonko jàpp gii ñu ko jàpp ci luñ ko mën a jàppee ci àddina contumace ba moom daal dinay tàbbi géej fa yàllaahu léegi munuñu ko woowee moom Ousmane Sonko ab contumax Ousmane Sonko moomee turbine yéen kaay xamal ma ne mbiram doy na waar lool ay avocat nee ñu Ousmane Sonko mi ngi ci coma boo xam ne xóot na de te lu ne nag mën naa am saa su nekk ay awokaam di joxoñ baaraam nguurug Sénégal naan leen xool leen li di def balaa moo gën a ñaaw Ousmane Sonko woppam gii metti na l'observateur naan kon Ousmane Sonko coma boo xam ne andi nag njàqare awokaam yi di alerte communication boo xam ne daanaka catastrophe la ñuy woote am ca waaye état bu Sénégal te ci pression bi rek maître Ciré Clédor li naan leen en tout cas lu dal Ousmane Sonko ma ni la yéena Ousmane a ngi ci coma boo xam ne maar day taali metti niki altine la daal di soobu ci boobule comment te lu ne nag lu ne maître Ciré Clédor li ne mën naa dal Ousmane Sonko libération yéen kaay naan maan lu ne it mën na dal ay ñoñam Falla Fleur Badjo jobi yéen kaay bi naan maan demb da dañu koo jële ci kasob liberte 6 daal di koy jaagar jaagare moom faala Fleur placé ko nag ci gardaaw yi ndax ne ñu nag dafa bëggoon génne ab bataaxal boo xam ne da doon yàq deru administration pénitentiaire ba ba ñu koy génnee moom Falla fekk ko ci grève de la faim ma nga daal di faible ba maar day taali ba ñu ko dégloo ba noppi dañu ko yóbbu hôpital Idrissa Pouye ngir téye ko fa yéene kaay bi naan man boo moytul moom faala moomee nga xam ne délibéré ñi ngi ko doon xaar daañu ko delloowaat tribunal ci beneen motif war ko téyewaat ci beneen motif waxtu woo xam ne faala day daanaka dara desatul ci moom ndax xiifal ci jàpp goo xam ne nee na dañ ko koo jàpp jaarul yoon téye ko ci anam woo xam ne metti na wala turbine yéene kaay naan man nguuru Sénégal mi ngi gën a metti ci ñoom syndicat bu liggéeykatu justice yi daal dina ñuy mere ministère fonction publique réew 24 heures yéen a kaay naan maan ngir nag élèves ak étudiants nga xam ne ñi ngi nekk ci biir prison bi waa CUSEMS daal dina ñuy fas yéene nag soobu ci gréew Dakar Times naan maan nguuruk Sénégal daal di dekeese lu toll ci téeméer juróom benn fukk juróom benn ci i tribune yéen a kaay naan ko déet bor la boo xam ne kay askan wi ci boppam ñoo ci nar a fay ba maar day taali le mandat yéen a kaay naan maan Moustapha ba daal daal dinay xam ne ni croissance bu senegal ma ngay jëm kanam l'info yéen a kaay naan maan Sénégal a moo ëpp doole champion la moom réew mi mi ngi ci croissance goo xam ni maar taali le soleil yéene kaay naan maan fi mu nekk ay Sénégal dafa mel ni mojji tribune yéene kaay naan maan Serigne Mboup day candidat ci élection présidentielle bi loolu la ñu dig moom Serigne Mboup mi nga xam ne diisoo na ak askanam ñaar fukki fan ak benn ci weer octobre bi daal di amee ca cœur de ville bu Kaolack daal di xam ne ni programme fasal na ko yéene daara yeeg tool yi penc mi ci wàllug wér-gu-yaram dina def protection sociale priorité fuite de cerveau daal di jeex ci réew mi ci wàllug mbay mi mu fas yéene jëf bay dundee dooleel ISRA ubbi ay centre de recherche wàññi jéggaane bi Europe sport mu def ko Sénégal Sénégal boo xam ni mën a dalal ba coupe du monde créer ay société ngir xëyu ndaw yi mën a ñoŋ daar daar yéene kaay bi naan man maire bi moom mi ngi ci tabaxum juróomi stade fas yéene it jox sëriñ daar yi seen gëdd ci réewum Sénégal booba libération mag may xamal ne gaal ga nga xam ni moo réeroon daal dina yegg si sa dax la lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci doomu aadama ña nga ca woon lu toll ci ñeen fukk ay mineur lañu ñaar fukk ak benn yi ay soxna lañu ñaar ay liir lañu geneenu gaal goo xam ni bàyyeekoo woon na def juróom benn fukk ak benn ci ñoo xam ni daal dina ñuy teer ca bés boobee moom it ca dax la ñeent ñoo xam ne ca équipage ba la ñu bokk ña nga l'hôpital fi mu ne baabu seen consul général bu Sénégal ca dax la ne fi mu ne daal màngaan gi ndaw yi ak soxna yi ñoo ci gën a fës tribune yéen kaay naan maan boobu soxna yi réew mi benn yitte la ñu am mooy ni ñu yokkee gannaaw ween diggante fenugrec bum bum ak collagène bàyyiwuñ dara l'observateur naan maan waaye UGB day fatwa bu jamra ma nga fa xale bu jigéen boo xam ni léegi da ngay dox ca université ba ñu gis sa bin bin mu daal di génn daar daar ma ni la 600 francs téeméer ak ñaar